waaw yooyu condition Afrique la rek je crois que tey depuis trois ans trois ans et demi ñu ngi fii euh, loolu mënul nekk excuse c'est vrai que lu ñu gën a loolu mooy jouer ci pelouse bu baax mais fii suñu stade bi tamit gëwuma ni que gëwuma ni que seen <laughs> suñu stade bi moo gën seen stade bi fële. mais amuñu benn excuse je crois que tey sénégalais yi li ñuy xaar mooy que ñu dem foofu def fa résultat bu baax euh, grand joueur boo gis équipe bu mag boo gis dafay am faculté boo xam ne mooy adaptation donc euh, ñun ñoo fa war a dem ñu adapté wu adapté wu ci pelouse bi et puis jouer match yi et puis gagné koy incha allah. Madagascar ñëpp xam nañ ni que place bu métti la euh, ñun demoon nañ fa il y a il y a deux ans pour éliminatoire yu coupe du monde yi. Euh, boo leen fàttaliku woon euh, match bu métti la woon je crois que au bout de de vingt minutes on perdait déjà 2-0 euh, amoon nañu ballu 3 bi mën naa wax ni sax amoon nañu ballu quatrième quatrième bi pendant une heure de temps vraiment euh, ça été difficile foofu donc xam nañu lu ñuy xaar foofu mais je crois que équipe Madagascar bi il y a ans ak équipe bu ren bi du benn ñoom tamit évolué nañu waaye ñun tamit en deux ans amagasiné nañu expérience am na lu yu bëree loo xam ne def nañ ko fii muy code CAN bi. 2017 bi mooy coupe du monde bi donc yooyu yëpp expérience la si ñun équipe bi progressé na donc am naa yaakaar ni que mën nañ fa def dara lu baax.